Léegi ki leen présenté émission bi mooy seen mbokk Oustaz Fallou Sène muy as ndongo su xeebu eh, ñu wax ci mbokk yëpp nañ ñu ñaanal ginnaaw ba ñu àndeek waa Pikine waa Pikine TV ñu ñuy gunge ci jotaay jotaay bi nag ñu ngi ko tuddee wàccaayu màggal liñ ci jublu rek moom mooy comme que ay ndongo lañ ñu nab nabi ci li nga xamni mom moy mooy euh, ñu gëna xam ki nga xamanteni mom moy khadimal mustafa ndax alain mu bi shay min jahlihi comme que amuñu kudul mom war nañu di nafar ci ay dundum di nafar ci walu lim bind ci xam-xam waye di nafar ci mom xam ko ak ak ak wa kërëm ndax lepp lo xamni nit ki nek na ci war na xam deug deug ki ci andal nak mom moy wa pekin tv di ñaan mbokk yi ñu topp émission yi bu baax a baax a baax a baax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye mu am garaatu abdullah garaatu abdullah nee naa leen mbokk yi garaat bu mag la ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ne subhanallahi alladi asra bi abdihi laylan min al masjid al haram ila al masjid al aqsa nga xam ni yàlla subhanahu wa dafa reñaane muhammad sallallahu alayhi wa sallam yóbboo ko ci kaw boobu lan la subhaanallahi allazi asra bi abdihi laylan min al masjidil xaram ila al masjidil aqsa al abd abd baatub abd boobee nga xamante ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yoroon na ko ki nga xamante ni moom mooy xaadimal Mustafa moo tax nga dégg mu naan xaabat maxaami xan fiya baaxil xadim wa innani abdun xadimun laa yarim sama maxaama moom maxaama la moo xamante ni fàdd na jun jullit yi fàdd xam waaye daal am ñaar yoo xam ne teg naa ko gi mooy mooy mën nañ koo xam muy wa inna ni abdun xadimun laa yërim abdun xadim la la la moom nga xamante ni loolu moom sunu borom moom moo ko defal am na sax ci góor yàlla yi koo xam ni dafa wax ni fa rasul fa in lam takun bil mustafa xutimat la xul naa la anta rasulun wajahu talixu laakin lahu xasanaatun kunna law xusimat yowmal jawaab bayna ahlil kufri maxtaraxu dafa wax ni xaadimal mustafa mii ma leen di wax kat bu fekkoon ni buntu ba yonent ya daan jaar yonent bi da koo tëj ndax moom mooy xaatimu nabi ina wa imaamil mursalin nee na bu fekkoon ni buntu ba yonent ya daan jaar yonent ba tëju ko kon dañ naan la anta rasulun waj axu talixu dañ naan yow miy jox suñu wetkat yow xaadimal mustafa yow yonanti nga mu ni laakin lahu xasanaatun kunna law xusimat yowmal jawaa baynal ahlil kofi maxtaraxu mu ni waaye xam naa ci sëñ Tuubaa yiw gu ko sunu borom dencal goo xam ni bu yowmal xiyaamee bu ñu ko séddalee ñëpp danañ dugg àjjana te yiw sëriñ tubaab moom du jeex fi lay des ki nga xam ni moom mooy euh, ki nga xamante ni moom mooy شيخ سيدي يموم دانيكو انت المربي بما رب الامين به حرفا بحرف ما في الجيل سرواكا يو دال نا يونتي با دان رك يو خادم المصطفى نونو غاي يري فوم تيغي تانكم فوفو غا تك سا تانك حرفا بحرف نينا كوكو موي خادم المصطفى حرف بحرف تي فوم تيغي تانكم رك خادم المصطفى موم موكو فا تك غا خامني لوليه Euh, ki nga xam ne mooy Cheikh Saad bu abi nga xam ni moom dañu ko wayaa ajaban baabul mu mufattixu li kulli muridin raama minhu jiwaara yow mu yéeme mii nga xam ne da doon bunt bu ubbeeku boo xam ni ubbeeku nga ñeel ñépp képp koo xam ni daan dara jaar ci suñu boroom kookee ci xaadimal Mustafa lay jaar ndax yàlla moom moo ko fa def kon mbokk yi waxtaan bii di première partie bi moom lañu indiloon nga xam ni dañuy jàngale euh, li nga xam ne mooy mbiru Serigne Touba bu ko defee ñu def ci ay tomb ñu jàngat ko bu ñu ñëwaatee ñu daal di nekkaat ci leneen daal di continuer li nga xam ni moom mooy histoire bi kon wa ma uridu illa al islaaha ma stataatu wa ma tawfiqi illa billah wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin